waaw Daouda je pense que loolu question le boo xamante c'était un secret de polichinelle ñëpp xamoon nañ ko ñëpp xamoon nañ ne da koy bon su ma ne ñëpp xam nañ ko je veux dire ni nga xam ni ñu ngi doon bàyyi xel ci langum politique bi bu yàgg yàgg euh, parce que bu fekkoonte ne du ko dissoudre du soxla muy de parole d'abord du soxla muy de parole il suffit que mu toog jàpp ñàmburam bàyyi la ñu doxal bu tayee Ousmane Sonko dem dafa ji déclaration de politique générale mais ba mu ne dee jël kàddu rek ñëpp xamoon nañu xel ne li ci ëpp bokk à 80 pour cent xamoon nañ ne daf leen di yëgal ne assemblée nationale bi liggéeyam dafay daal di jeex. donc loolu pour man ñi mu am nañu mbert certes mais am na ñu bëri yaa ngi sax démb am na député am na commencé dajale seeni i bagage ñu bëri euh, ñu yàgg a topp DPG. et puis comme ni ma ko expliqué xam nga su fekkente ne euh, lu doon ni déclaration de politique générale su waree am. ñëpp xam nañ ne conseil des ministres bi passé kon dañ ko ciy dugal nga dégg mu ne ñaax naa ministre yi wax naa premier ministre ministre dañ ko accompagner mu dem réussir DPG bi muy def nit ñi xam ne kon kii kat mi ngi waaj pour dem def ci DPG mais conseil des ministres bi gisoo fenn fu ñu ci waxee DPG te bii ñoo weesu te wax na si ne par exemple damay dem fu ci mel ni Tiwaawan damay dem fu ci mel ni beneen dëkk ak beneen dëkk ak beneen dëkk waaye léegi loolu lépp nag mu wax kon da ngay xam ne kon mi ngi ko doon waaj pour semaine bi hmm. mais loolu mu junj ak loolu mu waaj yëpp

argument yum mu avancé doy la wala doyu la chacun est libre euh xamna rek euh, ñu jox. Euh, voilà mais mais mais Moustapha dina ko def ak du ko deful dañ ne ku yàgg suivre di nga am lo ci japp mais bo xolé dem yenn ci député nee ci assemblée nationale aussi ñoo ko doon defar. Mm-hmm. ñoo ngi doon dalal xelu askan manam député ya fa nek ne leen euh, maanaam di defar di wane né ki manam le président fii lay tok ak yoy non yëpp manam le premier ministre ndaxte démb. député yi nee nañ ñoo ngi ko doon defar pour wane ne mbir mi dina ñëw est-ce que dugg ñu dëgg-dëgg ci mbirum politique. waaw mais mbirum politique la ñu nekk amul dugg nañ ci mbirum politique la ñu nekk bu baax a baax parce que lan moo ñu dugal ci mbirum politique mooy d'abord mbirum jàpp date yi dafa poser problème président expliqué na ko démb président assemblée nationale bu demee ba outrepasser ses prérogatives jàpp dat te warul jàpp dat mu pousse ko mu tamit mu jàpp date date boobu mu jàpp balaa moo ñëw mu tas ko. léegi après ñi am luñu jappandiku né non président dafa wax kàddoom war won dañ nangam ak nangam ak nangam or mbir mi politique la doré depuis ba ñu lankalee li nga xamante moy ba Ousmane Sonko waxé ñu tontu ko ñu lankal ko li débat d'orientation budgétaire bi après la ci xew ñu né dafa dafay défanté ak ñun faté né euh, suñu président de la république suñu constitution daf ko may doole bo xamante ne ak lépp lu munti am le dernier mot du revient. bu deux ans wesso mën na dissoudre assemblée nationale fi mu jaar yépp le hmm. fait que wax ñu tas maanaam haut conseil des collectivités territoriales conseil économique social environnemental euh, tey boo ko xoolee démb ay argument am yooyu la wutoon te yoon mm-hmm. may na ko bugg euh, assemblée bi defee deux ans mu tas ko ndax yaakaaroon noonu mu tas ko gën woon yomb kat démb mu doon wut ay prétexte yoo xam ne moom la wax et aussi pré li mu wax ndax des raisons la yoo xam ne war nañ cee mën a tas assemblée nationale. waaw non xam nga daaw li nga expliqué nii bu ko neexoon sax du def du kii bi bu ko neexoon sax du fi nekk di indi explication ak yooyu noonu day jël décret rek daal di dissoudre li nga xamante ne moo di euh, assemblée nationale bi parce que euh, article 87 bu constitution bi li mu wax dafa leer dafa nag buñ ci tolloo na saisir ki nga xamante ne mooy le président assemblée nationale na saisir son premier ministre avis avis donc buñ ko joxee avis liew leen benn yoon su weesoo su matee mu jàpp date bi muy jàpp mu tas ko kon c'est c'est c'est clair léegi nag maintenant pour expliquer man je pense que explication bi li solo li mu gënoon bën xel ci communication Moi, la date du 13 Moi, bi mu naan bi may date bi c'était pas une duperie manam nyom nyom nyom nyom, ñoo date tawar ñoo jàpp date j'ai obligé me restaurer li nga xamante ne mooy sama autorité moo tax ma jàpp date Non, la ko expliquer démb ci li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy discours bi mu def maintenant loolu mu wax noonu tey ci am na politiciens yi ku nekk am nga ci interprétation mais dama jàpp ne assemblée bi mënta woon a gudd fan te boo gisee assemblée bu juddoo si coow deewee si coow rek noonu la juddoo woon bi ñu dugg assemblée lu ñu doon wax élection du fi amee élection dina am supprimer nañ liste bi liste bi dem na assemblée bi ñu ko faatee aussi tamit loo gisaat coow li président nangam président waxoon na nii gis nga boo ni nu nu ñu koy waxee kii la kii reñ par l'épée périra par par l'épée bu fekkente ne lii moo la lii moo la fal loolu moo lay folli naturellement. assemblée de violence de judo, nous woon bañ disparaître ci violence je menais par violence violence de plusieurs formes maanaam nit ki defar listam ba noppi kële defar listam waruñoo bokk nga jaay ñiy doole nangul ñii li, bañal ñii lële c'est en quelque sorte une forme de violence mm-hmm. donc loolu moo ma japonais, ne les gens, leen tamit benen mbir la donc lolou motax ma jàpp assemblée bi mom configuration fi nek arrangé wul ñi nga xamantene moy nguur gi et c'était tout à fait normal mu jël décision dal koy dissoudre. Mhm. Euh, président Damel gis nga euh, quatorzième législature bi deux ans amener ben journal bu titré euh, pour la première fois. ci réew mi di Sénégal Bassirou Diomaye moo fi njëkk a dissoudre national nationale li journal bi bind yow mi nekk si langum politique bi booba tey ndax yaakaar ngoon nga ñii ñëw woote woon jub jubal jubbanti dinañ tas assemblée bi.